jërë ngeen jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM euh, quatre vingt point cinq ñoo ngi leen di nuyu mbokk yi nag euh, tey ci samedi ji ñu dellu am mbégte dellu siwaat ci seen émission petit métier comme ni ñu koy àndee ak yéen samedi bu jot bu treize heures trente jotee jàpp quatorze heures ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diawo Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi nag tey ñu dalal Omar Seck Ndiaye. Diop Omar Seck Diop. oui. <laughs> mais Omar dafa mel ni nga woon Ndiaye ji de. yaa yi bës ah. <laughs> Ndiaye yi bës waaw maa leen di may Ndiaye yi bës Omar Seck euh, Diop. waaw d' accord mais Omar Seck Diop euh, maa ngi lay nuyu. waaw Abdou Khadre Seck maa ngi lay fay bu baax. di la ziar di kontaan trop trop ci invitation bi. d' accord euh, seen émission petit ci tey Omar Seck Diop la dalal danañu waxtaanee ndax moom chauffeur bis tata la. waaye avant hmm. muy nekk chauffeur bis tata. nekk na receveur reseveur mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci bus yi di laaj paas yi mën nañ leen a woowee bu doon tey euh, njaga njaay la car rapide yi ay apprenti lañ leen di euh, woowee oh. euh, Omar nag dañoo bëgg a waxtaanee wàll woowu ndax mën nañoo xam kañ nga dugg ci wàllum transport waa Abdou Khadre man maa ngi dugg ci transport en 2009 2009 laa dugg ci transport dugg ci kër gu ñuy wax euh, mbuub voyage wala transport mbuub sax laay wax wax benn la transport mbuub laa duggee commencé si ligne bi ñuy wax ligne quarante ma ñëw fa ñu testé ma daf ma defal ma stage pour jàngal ma nan la ñuy jaayee ticket receveur laa njëkk a def en 2009. ligne ligne 40 mooy fan ak fan. ligne quarante mooy jugee gara Mbao di dem seen jaar Maris. ok. moom laa njëkkee deux mille neuf fin deux mille neuf bi deux mille dix ba de mille onze ñu gis ma ne ma yow daal ak ni ñu gisee ak ci système bi ma doon liggéey man dama nekkoon receveur boo xamante clients yi nekkoon ci oto bi sax dama doon vérifier fi ma toog ku dagg ticket ku daggul ticket léegi nag performance boobu dafa dem ba egg ci ci kaw gars yi ne kii daal dañ ko jël ñu def ko contrôleur comme que moom day dagg ticket te mu ñu veillé ci clients yi dagg ak yi daggul ba mun leen di contrôler ci même gisee bi mu toog. jëlee ma receveur. d'accord mais mais Omar euh, Seck Diop ñu ñëw ci euh, receveur. Euh, lan moo tax lan moo tax nga choisir receveur te yeneen métier yi nekk fii lan moo la ci dugaloon. waaw dafa am nag loo xamante dafa la mbir mi commencé ndax parce que man sama yaay bi ma jur dafa yàgg ci transport. ay année mille neuf cent quatre-vingt la yoroon restaurant fii Thiaroye Kaw chauffeur yi nekkoon Thiaroye fii yëmbal lépp ci restaurant bi lañ doon reeree. ba mu am ci ay kóllëre ba ñu tuddee ko ci doom kon nag dama yaakaar ne deret ji damaa topp moo tax ba ma demee ba màgg jàng ba am fu ma yem jàng bi doxatul yàlla mi dara tëwul sama bàjjan bi boo ko sama baay benn papa dafa taxaw ne sama yaay kii faaw nga boole ma ak moom mu yóbbu ko ci alaaji njóogu mbub pour mu dugal ko ci tataay parce que liggéey boobu baax na te mun na ci am dara. d'accord avant nga ñëw ci tataay loolu na boobu def naa menuisier nag menuisier ba ma bàyyi jàng net sama yaay dama dugal ci benn at atelier bu nekkoon fii ñu naan ko imaam Gallo Diagne moom dafa gaañu sax ajuma bi passé ma koy jàlle soxna yeeg mbokk yëpp ma def ci moom benn laksitaan yi ci laa jugee ci ministre bi dem ci tataay. lu tax yàggoo ci euh, ministre bi dafa ne sa xel def ci neexutoon wala da nga ko bëgg toon waaw neexoon na ci sax neexoon na ci trop. neexoon na ci trop. ministre bois la wala ministre métallique. non ministre ministre bois. ok. Eh, te ah, ah, astafurlaa sax foofu damay jum ba ma jugee ci miniser bi sax dama dem ci sama place nijaay sama nijaay bi nga xam te moo bokk ak sama yaay ndey baay place am laa nekkaat moom mu yoroon labo photo yi après daal affaire yi xaw a am nu mu demee si la sama bàjjen bi waxee sama. ah da nga doon def photo photo da nga nekkoon ci labo yi photo. waaw nekkaat naa sama nijaay photographe la te en plus dafa yoroon labo dafa doon yor labo di produire ay photo di tii def tirage développement ma nekkoon ci place am comme jarbaatam rek mu ñëw teg ma ci wetam. mais dafa neexutoon liggéey bi foofu. waa liggéey bi neexoon na neexoon na trop mais dem ba ci biir daal. ñàkk déggoo. waaw liggéey bi pas ñàkk déggo sax liggéey bi demeetul na mu demee woon. d'accord léegi euh, njàng mi lu tax nga gaaw ko bàyyi Omar. waaw jàng bi moom ah xam nga fii nag Sénégal dinaa la wax dara moom euh, man xam naa ne sama xel neexoon na parce que man li ma fàttaliku ci sama jàng mosuma passé dix premières yi mais def naa entrée sixième ak benn ak ni ma ko defee aw ma mais samay mbokku encadré wuñu ma def loo xam xale moom lu ko neex rek la xam. waaw boobu man gisoon naa ne jàng bi doxul dama war a bàyyi daal. Mm-hmm. mais benn année laa def échec échoué jàlluma ma parents yi ne moo da ngay arrêté jàng. mais instant bii boo ko doon euh, am na loo si rëcc quand bii rëcc bu baax sax bu baax man sama koñ bi ma dëgg caaree kaw bu rëy di ni ma dégg damay encadré xale yi nekk fii ne leen jàng leen gis nga ku dof dof lu ba bàyyi sa jàng boo màggee rek rëccu ko. Oh, ok loolu am na sol trop Omar. waaw lu ñu mën ci jàng bi rek ni ko def. léegi ñu ñëw nag euh, ci 2009 ci bus Tata yi nga nekk reseveur ñaata euh, bi nga doog di commencer di def receveur ndax nekkoon na lu yomb ndax tamit euh, client yi danañ faral di jox respect receveur yi. non receveur moom c'est que boo bëggee dégg-dégg lu méttee ñu noonu maa ngi ñaanal sama rakk yu jigéen yeeg sama mag yeeg sama tante yi ci nekk yàlla neen yàlla may xolu muñ mais métier bu gën a métti receveur moom bëriwul ci réew mi receveur clients yi dañ leen a joxul cër te tamit loolu warul demee noonu ki nga sa partenaire la yow da ngay xëy otoom ngay ñëw yéeg mu daggal la ticket voyager la pour nga mën a dem uti ci sa ñàkk muy nga liggéey kooku dañ ko war a jox le minimum mais clients yi tel n'est pas le ñoom bu ñu duggee rek prix day mel ne day am leen di def mal ak receveur bi. benn animosité daal. waaw waaw mel mel ni étudiant ak policier yi. waaw day mel ne étudiant ak policier yi comme étudiant ak policier yi daal niñ mel. une deux ñu jàppante. ci ni mu amee receveur yi nag ñoo xamante si lañ amee xolu muñ doo leen doon wax fii ba suba du ñu tontu ci la amee ci client yi ñoo xamante tamit dañoo baax am xolu muñ boo doon déconné fii ba suba ñoom dañuy comprendre. Mhm. mais métier bu metti mooy receveur. bu metti d'accord léegi yan jafe euh, bi nga nekk receveur nga si mas a jànkonteel yan jàppante nga mas sa jàppante client yi. ci problème mu wecc ma aw ma wecc loolu ma ci gënoon a metti da ngay bindal nit weccit yow tu sur et sa weccit jeex na nga bindal ko comme ça trois cent cinquante moom mu war a fay fanweer téeméer nga bind ko trois cent cinquante. mu avancé ba tuuti ne la ay eh, am wecc ma nga xool gis ne yor nga trois cent mais yoroo fukki dërëm nga effacé trois cent cinquante bi bindal ko fukki dërëm delloo ko trois cent ne ko xaaral tuuti ma wut wecc ndax ma am moom mu dem ba nga li mu wàcc mun la eh man damay wàcc ne jox ma sama fukki dërëm mais amoo wecc mhm. pour noo ko mais léegi yow boobaa nooy def nga ne ko ah kenn yorul ñaari fukki dërëm wecc ma client yi ne pat rek moom mu commencé ay tiraan ngeen. kon léegi Omar kon daal li ñuy li muy dox diggante receveur yi ak client yi bëri na aussi. non bëri na trop trop trop trop foo ko natt rek weesu léegi ban stratégie la reseveur bi war a teg wala di day bësante ak xoolam euh, wala ban comportement la receveur bi war a amee euh, jëmale ko ci euh, client bi. wa moom mooy nga am xolu muñ rek. xolu muñ daal laa xam ne boo ko amul doo am jàmm. léegi lan moo tax bët boobu client yi di ko xool receveur yi dañ leen respecté wul dañu jàpp ne receveur du métier. non dañoo jàpp ne du métier te ñoom la koy wax sax nga koy dégg dañ naa la lii ngeen di def nii du métier. ay ay ay ay ay salaire ay salaire misérable lañ leen di fay lii du liggéeyu dara maanaam tous les noms ngay dégg. di leen di xas te seen i pourtant seen i a fa nekk ak seen i rakk. waaw wóor na yàlla. te yow te receveur bi receveur bi mën naa bokk étudiant moo étudiant am ñoom mën nañoo bokk kër. no am na ay étudiants yoo xam ay receveur lañ. waaw non non dama la bëgg a wax na la société bi benn la. waaw ndax bu ñu xëyee ci kër gi kenn ku nekk day génn defee dara. mais mais mécanicien bi rakkam mën naa nekk receveur étudiant bi journaliste bi rakkam mën naa nekk receveur lan moo tax Sénégal yi mënuñu comprendre loolu bëgg leen a ñàkkal fayda. ah man de loolu ma jaaxal te te te te te man xam nga li tax man bëgguma nit kuy sous-estimer benn métier. Hmm. yow métier booy sous-estimer rek bu amul woon rek yow dina la coûter cher. dëgg la tey bu bu receveur yëpp xëyoon ne liggéeyuñu grève. Hmm. daal nañu fi fan yee passé. dëgg la ah, ban problème yooyu yëpp. waaw mu mu def deux ñun ñun ñoo ñoo entamé woon grève bi man je suis le secrétaire général de euh, adjoint de SPT. Mm-hmm. nekk coordinateur de union de travailleurs de l'AFTU ci ñu piloté woon grève bi ci laa bokk. mais yow nga xam ne lii def nga ko mais du du lekk lu sedd sa xol. mu nga see sa aajo faju mais coono bi nga teg population bi ak askan bi. te population bi population bi say maam ngi si say bàjjan nag si say yaay man man am naa sama benn dëkkandoo ñëw fii ne ma amee ngeen nit ak taxaw naa fii bëgg a dem fii. buntu Pikine fii ni ko waxee eh, kii bi EDK bi nekk noonu da ngay wax noonu technopole. waaw di nga yëmbal ak technopole mu fay trois mille cinq cent taxi. loo xamante fii si bis bi fay cent cinquante quarante trois bi rek mu yóbbu ko. ok léegi euh, Omar euh, Seck Diop mbokk yi moom la ñu euh, invité moom yàgg na ci reseveur fi mu ne nii chauffeur la yow yaa nekk secrétaire généralu kii bi nu SPT SPT. syndicat des professionnels du transport. d' accord léegi euh, Omar. waaw léegi nag clients yi ñoom tim léegi léeg am na ñoo xam ne dañuy wàcc te duñ dagg ticket. loolu mos mos da nga gis léeg-léeg yi léegi nag gis clients yoo xamante ni ay tappalekat lañ loolu yow nangeen koy gérer. waaw loolu moom dafa nekk loo xamante am naa expérience bi parce que contrôleur moom def naa ko cinq ans. Mhm. def naa juróomi at yoo xamante sama liggéey nekk lu dul yëg ci oto di contrôler ku dagg ku daggul ticket. loolu moom moom mooy cas bi gënoon a métti au début mais fi mu nekk nii moom changement am na ci parce que nit ñi commencé nañoo am esprit de dépassement bu njëkk ba da nga doon gis ay pagum jëm ay pa lu nekk nga doon gis dañuy yéeg duñu dagg ticket wala fu ñu waree daggee ticket bu fanweer ñu dagg bu cent franc fu ñu waree dagg bu deux cent ñu dagg bu fanweer di di burle section yi yooyu dañ ci doon am ay problème yu métti ba leen yóbbu ay gendarmerie ak yooyu mais vu den dernier moment bi moom loolu moom dañoon na ba changé bu baax. yow mos nga see jàpp client. kenn mënu koo compter. ah ku ko. <laughs> li ma jàpp man tey li ma li ma la mën a wax ci ay cas yooyu cas. fuiteur de transport li ma la ci mun a wax tey kenn mënu koo compter. léegi wax ñu si benn cas rek wala ñaar Omar. tey nga fi dóor nañ ma si <laughs> lu nekk dañ naa ko. ah ak client yi lay dóor. waaye bu baax sax <laughs> kay ñett booy mos naa problème maris. mu yéeg di contrôler oto bi fekk ñett booy yu nekk ci oto bi nag ñoo ànd. ma laaj kenn ki ticket bi mu jox ma ticket ma delloo ko ko di laaj keneen mu paas ko keneen ci ma ñëwaat ci kooku eh, kim ka paas na ko ma xool sa ticket mu woon ma ticket bi ma gis ticket bi ne xotti woon naa ko quoi ci kaw laa defoon benn ces bu ndaw ma moom tourné ki ma njëkkoon laaj ma ne ko booyee eh, sa mu ne ma waaye na nga ma ba pare ma na mu ne ma noonoo ñaar yoon ma xam ne ki ki moom téye na ticket bi paas ko dem ci keneen kooku nekk fa di làmb di làmb di làmb dajul dara ma ne ko booy mu ne ma ndax ma ne a contrôlé yow ak kii ak kii yéen ñëpp li ngeen def ni fii tamit la ndax benn ticket bi ngeen di passante te naa naa leen dañuy dem gendarmerie booy na duñ dem ay mag lañ ñu tax dewuñu duñ dem o bi taxaw am benn client buy wàcc rek booy na dañuy wàcc profité chauffeur bi yéex a tëj bunt bi booy wàcc ma jàpp ci kenn ki rek kenn ki xëcc ma rek ma wàcc rek ñetti booy attaqué ma. Hmm. mais maanaam affaire bi comme mbàccum gerte réel réel réel réel réel. léegi fuñ mujj. non après clients yi dañoo wàcc ñëw di àtte booy daw dem. booy daw dem. booy dem mais escanté nañ ma ah escanté nañ ko bu baax d' accord léegi euh, Omar bu paasee loolu tamit ci biir euh, tata yi tamit am na si ñoo xam ne euh, ay góor ñoo xam ne euh, góor ñoo xam ne dañuy nekk di di sës jigéen ñeeg yooyu loolu tamit mos nga ko gis. waaw ba taay. Eh, mais Omar loolu gannaaw na de. ba taay kay nee naa la am na benn cas boo xamante moom dafa bëri am na ñoo xamante dama dem ba xam leen ñoo xamante ñoom uniquement maanaam dama leen di gis du benn du ñaar du ñett ñuy def loolu ci oto yi. ah sës sës sës nag tey bi gën neex nag yaa ngi koy def nag. non am na non am na koo xamante kastoor laa musa wàcc ak moom ne ko sa a mu ne ma naa ma ne ko xamee nga ma naa ko yow l'autre jour là yow yaa amoon ak problème ak bi yaraax ba ma wàcc di la défendre naan naan jigéen ñi bu ñu bañ leen sës nañ bañ a yéeg ci oto bu fees te bu ñu taxawee xam ne fi ñu taxawee baaxul nañ déplacé wu mu ne ma ah yow loolu ma ne ko man la ne ko korog amoon na cas bu mel noonu tey nga amaat ko mu ne ma naa ma ne ko saa il faut faire très attention oto yi ku nekk ngay tasanteel te yii mun nañ la kon moo la gis naa ko benn gis ko ñaar yoon kon loolu moom jikkoom la. mais est-ce que du dañoo feebar. non un feebar deux tamit jigéen ñi tamit dañuy def provocation man mënu ma comprendre nga nekk jigéen sol tubéy bu seere yéeg ci oto bu see fees ba ba ba kenn mënul bouger nga taxaw sës góor mais tamit góor ku nekk góor la. ah mais léegi yow yow est-ce que mos ngaa gis góor ak jigéen jàppante cooté bi ba xeex. waaye ba dem police. ba dem police ba dem police ba dem police nu ñu koy waxee euh, zone France. fekkee naa ko du benn du ñaar ku jigéen gi ku góor ki dafa dafa wàcc ci kawam ba tubéy bi xaw am taas nii. ba dafa dafa daanu daal ku góor gi. dafa daanu ci kawam voilà dafa daanu. mais Omar loolu garaaw na de. <laughs> Pape ne kon nag man dama am jëkkër damay sëy nga dañ maa dañ maa waay takkal ko ay noo foofu. Uh-huh. waaye coow li ne kur. ñu ñu ne chauffeur bi nañ dem gendarmerie lii duñ ko duñ ko problème bi ci oto bi mun na causer ay dégâts. gars yi dem gendarmerie ñu dem gendarmerie bañ demee ñu déposer leen ñoom ñaar foofu pour ñu régler seen problème. seetet mais Omar euh, lu jëm ci wàllum taf gi nag taf bu tataay dégg naa bëri na taf de. waaw loolu tamit am na ci moom te li ci gën a garaaw mooy ñi tafu ci tataay ñi gën a bëri man ñi ma doon gis ñi gën a bëri wala ma mosu teg bët dañuy solo ba rafet sañ xeeñ lu neex yéeg ci oto yi di tafu. loolu moom gis naa ko man maris la ma dal benn waay dañ ko dañ ko dañ ko accuser tafu ci oto bi mais waa ji ne lank ne tafuwul gel bi naan man xaw ma fan laay liggéey ak yow xamuma dañ dem police affaire yooyu coow li kërti kërti na waa ji téléphone lu ndaw si defu ko ba ba ba denc ko ci costume mhm. na ma turam ba ma mën numéro am mais kii la ni ko fee la nekk waaye big la nekk. mu ah. wane carte am man policier la affaire léegi problème pour régler ko yomb na da ngeen bàyyi dañuy def fuyut. te fa tëyel bunt bi te fa fekk téléphone bi ci mais loolu garaaw na ci moom te li gën a garaaw mooy ni ndaw waa ji tafu ko man li ma jaaxal mooy tafu ko ba fay téléphone bi ndaw si soog nañ ko. c'est gars yi professionnel lañ de waa ji jàpp ko jël ko yóbbu. d'accord Omar euh, Seck Diop mais daal euh, liggéeyu euh, receveur daal nekkul lu yomb. non nee naa la métier bi a métti de man gis ko bëriwul ma gis. mais léeg-léeg di nga gis ñoo xam ne sax ci biir bus say mbokk la ñuy doon. waaw da ngay gis say mbokku da ngay gis client yoo xamante day dem ba ba nga mënante ñoom am na ay receveurs yoo xam si client yi dem ba takk leen am na yoo xamante ci receveurs yi lañ takk. loolu dina am ah, ay client takk ab receveur. waaw dina am de dina am man de man xaw ma ci koo man dama ko xam mais dégg naa ko ba taay. ok ñu di wax xamante diw de dañ koy takk ma ne waa kan moo koy takk ñu ah, benn client boo xamante da ko doon yeb de moo dem mujjee koo takk. léegi euh, boo si gisee sa mbokk ak yooyu. sama mbokk comme bu yëg ci oto yi. waaw. waaw mais man moom ba may nekk receveur moom bu dee sama mbokk dafa yéeg man maay dagg sama ticket sama xaalis may la mais comme ça toog noonu ne la noo yéegal rek bañ a fay loolu règlement intérieur oto bi tere. dañ ne oto bi képp ku ci yéeg da nga war a am ticket. d' accord mais euh, euh, Omar euh, Seck xam nga tamit tey sànq yaa ngi wax ne am na étudiants yoo xam ne receveur lañ. waaw. Euh, receveur lañ euh, bu dee tey par exemple tey koo xam ne yéen a doon jàngandoo université euh, tey nga dem ba fekk ko mu nekk receveur est-ce que loolu tamit du am benn benn rusaange ak société bi ni mu mel loolu nan nga ko xalaatee yow. non c'est un peu gênant moom xaw na xaw na gêné wu trop nga nekk étudiant wala nga jàng ba am sa diplôme ba pare tourné waat nekk nekk ci oto bi dagg ticket moom franchement. c'est un peu gênant mais nag nit moom sa destin munoo munoo koo kii quoi du gaade munoo koo tej yàlla bu ne yow fii nga war a jaar lii dalaa war a dal di nga nekk receveur di nga nekk emprunté di nga nekk maçon yëpp a métier bu munti nekk yow dañ koy jàpp ne sa destin la bokk rek te bu yàggee day dem ba jeex. d'accord mais yéen euh, euh, si est-ce que yéen receveurs yi est-ce que Omar am na benn kuréel bu ëmb receveurs yëpp. waaw no am nay kuréel yu ëmb receveur yi comme ça am nay femmes yu astu yi am nañ seen benn euh, mouvement boo xamante man mii ci ñi ko installé woon laa bokk ñu tuddee ko les femmes battantes de aftu ñu def seen regroupement def seen i natt ñoom jigéen ñi di def seen i tour di demalante di dikkalante mm-hmm. am na ci di def ay nat yu am solo di ci jàppalante seen biir di def ay social ak lépp mais est-ce que yomb na ci jigéen ñi non yombul si moom yombu na ci yomb ci na parce que jigéen moom xam nga yàlla bind na leen fi ñu nekk rek du ñàkk nam am ay tirement wala yooyu mais franchement ñoom loolu bañ ko installé ba na nañ fi benn huit huit kii nu mu tuddati waaye huit bu neex invité autorité afti yëpp ñu ñëw ñu wax leen ci condition yi ñuy dund ñoom jigéen ñi bu ñu ëmbee bu ñu amee problème yëpp wax leen ko mais tel n'est pas le ba léegi autorité afti changé wuñu ci dara ci revendication yooyu ñu doon wax ci d'accord mais Omar euh, est-ce que receveur ak bus Tata di dawal bus gis nga si koo xam ne nekk na receveur dem ba nekk chauffeur ba am oto boppam waaw am naa ci kenn am naa ci sama benn koo xamante man ak moom ñoo kuma ñoo nekk non moo ma enseigné sax am naa ci mun naa bañ a wax turam mais si ligne quarante la nekkoon moom nekkoon receveur jóge ci receveur nekk contrôleur jóge contrôleur nekk chauffeur. ok ba muy nekk chauffeur sax fekk na ne dajale na ba am caution ba dugal ak car rapide am pour ñu génneel ko Tata léegi nag ba mu demee ba nekk chauffeur di dawal ci la otoom génnee ba fi may wax ak yow nii chauffeur la. te ci afti ji la nekkoon te mu ngi yor oto boppam. mais yow euh, Omar mos ngaa jaar ci contrôleur. waaw def naa contrôleur def naa ko cinq ans. mais yow bi nga bi nga nekk receveur da nga doon nekk receveur en même temps ngay contrôler bus bi. damaa da non waaw ba may nekk receveur foofu ko commencé woon mais dama ko an yooyu. ah ñu génn da nga def receveur ñu xool ni ngay liggéeyee ñu jëlee la receveur def la contrôleur. def ma contrôleur. ok ma def ma def contrôleur cinq ans. en plus ba may def contrôle tamit daanaa defaale régulateur par exemple moo war a contrôler oto yi am régulateur mooy ñi nekk ci terminus yi jox oto yi départ am ku ñëwul ñu renvoyé ma ne ma demal terminus sangam régulateur ba ñëwul nga nga nga réglé terminus ba. d'accord ma dem def régulateur. léegi kon Omar euh, def nga receveur juge fa def euh, li nga xamante ne mooy contrôleur. jamono ji chauffeur nga. waaw jamono ji chauffeur aftu la mais euh, en ce moment nii tamit def naa aftu dawal naa fa ba pare jógewaat naa fa. dem ci beneen entreprise boo xamante ne day def ay euh, day def transport di def ay personnel fa nekk fi nekk ni muy Mbour voyage. Mbour voyage. Mbour nekk en ce moment nii. Mbour voyage amul ay tata. non am na non non ñoom ay bus euh, personnel la ñu mais entreprise bi au fond muy transport Mbour bi nga xam te fa laa nekkoon moo am nay tata. mooy hmm. nuyu en passage sama patron bi ma nekkoon ci moom jàngee ci moom métier ba amee fa permis muy ma diine mbub c'est la même chose rek bu voyage ak transport bu bi ma nekk yëpp benn la. d'accord léegi yow bi ngay def euh, chauffeur Tata Aftu ñaata at nga ko dawal. non yàgguma ko moom dama presque embauché ma fa sax benn oto dama fa def tuuti rek capp comme li ñuy tuddee ñun capp ay quelque temps rek après ma dem bu voyage oo d'accord léegi euh, euh, lan ma waraloon seen grève bi passé. waaw grève bi passé li ko waraloon moom mooy point de revendication yi nga moom la Aftu di jooy depuis ba léegi rek. Mhm. versement IPRES yi caisse sociale congé yi heures supplémentaires yi ak yeneen détails yi nekk ci biir mën nay onze points wala neuf points yomb bindoon nañ ko depuis deux mille cinq ba léegi problème boobu rek la mais est-ce que amul ñuy liggéey ñoo xam ne def luñu leen contrat waaw am na mais tey jii buñ buñ ne téeméeri nit ñoo nekk ci benn entreprise nga ne am na ñett yu am contrat est-ce que loolu ça suffit déedéet loolu doy na war nga ne téeméer ñuy aft comme ça exemple nga ne aftu def na plus de six mille ou sept mille employés ñi am contrat ñëpp ñëpp matuñu deux cent. matuñu deux cent. matuñu deux cent. man du ma doon compter. ak man li ma nekk ci mouvement syndical li may dajeeg ay travailleurs ak li ma dem mënu ma laa compter cinquante yu contrat mais damay généraliser man ñi ma xam cinquante yu am contrat xaw ma leen te man presque liñ yëpp travailleurs af xam nañ ko mun naa wax loolu waaye man mënu maa wax cinquante personnes yu ma xam yu wóor yoo xam te wóor na man am nañ contrat xaw ma leen. si receveurs yi ak contrôleurs yi. ak chauffeurs yi ñëpp. ak chauffeurs yi. ñëpp nag. da ngay liggéey noonu cent contrat sans rien. amul dara amul contrat duñ la versel euh, IPRES duñ la fay sur bulletin de salaire xam nga nit ki li minimum man pour man mooy même bu amul contrat yow boo koy fay jox kayit bi wane na yow de liggéeyal nga ma jur bii ba weer bi dee fay naa la sangam som bi nangam la loolu sax amul amul benn kayit bu ñu lay fay boo xam ne dañ koy bind. pour nga xam ne diw mii de moo may liggéeyloo fay na ma. léegi nan lañ leen di fayee. espèce en espèce la ngay fayee billet état ngay ñëw ñu yëkkati xaalis bi jox la am sa salaire bi am na ñoom seen salaire sax mënuñu am makaaba jëlee ko en global da ngay ñëw exemple ñu jox la quarante mille ñëwaat ñu jox la trente mille nga ñëwaat ñu jox la quinze mille wala nga ñëwaat ñu jox la dix mille noonu lañ lay fayee. mais loolu métti na de Omar. non non yow da ngay liggéey ba weer dee yow weer bu dee liggéeykat Afrique bëri na ñoo xamante ay turu weer bu dee dañ koy dégg nii rek mais xaw ñu ko. da parce que yow li ñu lay fay avant le dix le quinze la vingt yow sa salaire sa salaire bi nga yaakaar yow pour weer prochain jël nga ko ay avance ba mu jeex al ma dix mille al ma quinze mille parce que da nga am problème ndax li ñu lay fay satisfait wul la mënul gérer say besoin mm-hmm. léegi nag yow munoo am kër am papa am yaay am soxna di génn di leen bàyyi te doo leen jox dara. d' accord loolu métti na de. mais receveur bi ba receveur bi léeg-léeg du faral di jéem a euh, cote si xaalis bi. ah mais bien sûr yàlla euh, duma ma généraliser mais tamit àdduna yàlla moo ko bindee du ñëpp mun a sàmm seen ngor. mais boo daan kott nan ngay def ticket wi nga dul joxe wala num loolu est-ce que nit na ko. papa man nag moom franchement du ma jugé foofu ndax euh, euh, man mosuma ko def. mais j'ai vu yu yu mel noonu yoo xam da ngay dégg ñu ne kott na ticket bi fii jaay na ticket bu baaxul daf ma nii def na naa. d'accord mais jafe-jafe yooyu noonu nan ngeen di fexe mu saafaraw jafe-jafe daal boo bëggee dégg sekk. Hmm. mooy état moo ci mun dara. parce que aftu bañ koy installé xalaatuñu woon mu mel comme ni mu mel nii. nu mel nii nu mel nii Ablaye Wade ba muy gis projet bi xam ne projet bi baax na faaw mu installé ko moom dafa yaakaaroon ne dinañ ko accompagner transporteur yi nga xam te la yaakaaroon jox leen oto yi ko ci jox bu yom mooy bu njëkk ba yaakaaroon ne dinañ def li mu leen waxoon mooy cahier de bi ñoom dinañ ko respecté mais tel n'est pas le cas ñi fi njëkkoon a nekk yàlla na leen yàlla yërëm ba ñu fi nekk tey kenn nangu koo respecté ñoom daal ñuy émerger ku ci amoon benn oto fi nekk am nga fukk ku ci amoon ñaar ba ñett am nga ñaar fukk yaa ñu tabax sa kër yaa ñu def say doom ci condition yu baax mais say travailleur moom ñuy nii zéro ñooñu dañuy liggéey ci seen kaw mais waaw exploitation la exploitation la euh, exploitation la euh, ni ko esclavage la te parce que di liggéey loolu nit ki te sañu ta wax boo ba pare gisul gisul avancement gisul avancement tu peux payer yow mun nga concevoir nit koo xamante yaa ngi koy chauffeur boo xam yaa ngi koy fay deux mille cinq ba deux 2006 yaa ngi koy fay mille ba 2021 yaa ngi koy fay 100000 loolu fan la am. dëgg la de. amul prime amul ancienneté du yokk amul benn avancement. mais toogaay bi métti na aussi Omar. non te te te amoo amoo sax privilège pour mën a pour ñu la ci banque utal la pour nga def pere xam nga nit ki mën am salaire exemple 100000 ma jox la exemple mais duñu la defalee contrat nga am bulletin de salaire banque boo am CDI am contrat même bu dee un wala deux wala trois millions banque bi day am confiance pour lebal la ko. te xam na ne embauché nga am nga këy mënoo koo raw. mais est léegi est-ce que gouvernement bu Sénégal ministère euh, des transport est-ce que mos ngeen ko mos na xam yëg na seen seen seen seen naqar ak seen métit mais bien sûr ñun suñu suñ grève bi mujjee am Mansour fay dafa saakoon pour ñu toog mais moom jour boobu dafa amoon empêchement de parce que Macky Sall moo doon dem Mauritanie ñoom ñaar ñu àndoon looloo tax mu absenté mais DTR la fa yebal directeur CETUD ñu toog ak ñu protocole d'accord boo xamante juboo nañ ko entre ñu ak ñoom ñoom ñu war koo respecté nag fin décembre. waaw mais Omar. man nag euh, su ma leen doon xelal. Hmm. yéen dangeen di fexe ba reseveur yëpp. waaw am benn kuréel benn sendika waaw syndicat boo xam ne bu dëgër nag lay doon. waaw. Euh, chauffeur yi. waaw am ñoom tim seen benn syndicat. waaw contrôleur yi am seen benn syndicat xam nga ñetti syndicat. waaw ngeen wut benn fédération boo xam ne nag mooy ëmb ñetti syndicat yooyu. waaw. waaw bu ko defee nag ngeen dem euh, ci ci ci ci ci fédération syndicat yi nekk Sénégal ngeen fas yéene affilié wu. waaw loolu moom. Euh, moom moo nekkoon suñu priorité. ñu fexe boole syndicat yëpp ñu bokk ñu bokk dem si benn centrale bu mag installé wu fa pour mun a am doole xeex combat bi mais nag dafa am ay quelque manquements yu am ak yu am ci affaire yi mooy travailleur af yi ngay wax ñu la noo man gëmuma syndicat bugguma bokk ci syndicat patati patata te xamuñu syndicat moom lépp loo xamante travailleur bi war na ko mën a am ak ay droit am ak yi nga xam te moo koy avancé syndicat bi moo ko mën a xeex moo mën a taxaw fëgg si table bi xeex ko mu am ko. dëgg la bu ngeen demul syndicat ministre bi si ban ban leen di recevoir. non am nañ ay syndicat am nañ ay syndicat mais travailleurs yi ñoo nangul en masse ñoo affilié wu ci syndicat yi. d'accord. jërëjëf euh, Omar Seck Diop maa ngi lay sant la gërëm. dëgg la dëgg euh, man man maa ngi lay sant di la gërëm di kontaan trop ci yi macha allah na solo trop. jërëjëf. jërëjëf jërëjëf euh, Seck Omar Omar Seck Diop moom la ñu invité woon moom dégg ngeen ko def na receveur ci bus Tata yi. def na contrôleur def na tamit li nga xamante ni moom mooy euh, chauffeur euh, dawal na si bus tata kon mbokk ñu leen di sant di leen di gërëm lii moo nekkoon seen émission petit métier ci réew mi FM ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 13h30 jotee jàpp 14h Mamadou Diaw Dial moo nekkoon ci wàllu machine bi ba samedi bii di ñëw incha allah ci beneen jataay